amis téléspectateurs people 221 ñu ngi leen nuyu di leen ziar baax a baax di am mbégte ci ñëwaat fii di encourager suñu joueurs yi def nañ li ñu mën ah yàlla nag mooy dogal wax dëgg yàlla équipe bi ñu gagné aussi tamit daf ko mérité kon ñun tamit dañoo démérité wul di ñaan yàlla ah sunu yeneen match yi nañ xool suñu avenir yàlla ñu sunu borom defal jàmm ak salaam tey nag ñu ñëw ci koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci kër gi dama wax ni keroog bi ñu jël suñu disque euh, bi ci kanamam la mu jig ñu aussi tamit muy waag waag rang rang kang-kang beng-beng moom lañ fa seenee waxtaanal waak dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre yéemaan salaamaaleykum salaamaaleykum je m'appelle Mouhamadou Fall alias Dimi Problème people 221 respect à tout le monde respect à tous les citoyens sénégalais respect a Sénégal respect à tamit ñëpp déggee rang muy gaaw Dimi tey fi may njëkkee euh, nga ñëw ñu ci benn école hmm. tey aussi tamit nga yeewu fajar ëndiñ ci benn école bu nekk Médina lan moo sabab tey nga ñëw ëndiñ ci école bi nii waaw en fait bu ñu organisé fii quoi chaque année école bi mooy école Soumbédioune tu vois et puis may lancer benn message rek si état bi quoi ñoom dañu jóg taxaw pour jaay école bi. pour yàq école bi ko nu Ndour fii jàngee ñoom ñëpp fii nañu jàngee keneen ak keneen fii la jàngee. Hmm? ba tey bu état ñëwee tey teg ay kàkkaaram naan day jaay école bi loolu day tar su ñun quoi. tu vois ndax xale yi fi nañ dëkk. ni ko nekk fi ni ko nekk fi nga dëkk nga mais après naa wan affaire yi si biir nga xool ni nga ko installé saxal fa garab ndax dana am benn association bu tudd yaatal aar mu ngi Medina di bëgg équipe bi yëpp ko waaw moo tax ñu ñëw si école bi da nga fekk may liggéey sax. dëgg la defaale interview bi. waxaale message pour état bi yëg ni fii nekkul fi ñuy jaay. école su mujj nekkul école bu nuy jaay. booy parce que fi école baa doole la ñu amuñu waa ñu amuñu alal buy dem seen école yi suñu doom yi loolu. seen waajur yi amuñu loolu. kon du xool ma ñaan l'état du Sénégal na bàyyi Sénégal yi ak école bi. na bàyyi waa Médina ak école bi. bu ko laalee nag ñoom dina dinañu laal. loolu moom na leen leer. d' accord yes sir kon xam naa après dinañ dugg ci biir xool yeneen affaire yi nga xam ne muy foofu ah. fi may ñëw mooy ci match Sénégal bi démb. naka nga jàngatee match bi bala ñëw dugg ci yeneen question yi. huit capitaine huit. huit yoo xam ñëpp ay capitaine la wax si club bi nu nekk. wax ji bare na mais sëriñ si bare na. dinaa ñëw foofu noonu. tey naka nga gisee classement bi aussi. ah li ñu am nag lan def quoi. ba mais Alioune moom. ba ma yàgg naa ko wax moom dafa dëgër bopp. waaw surtout loolu parce que gars bari nañ ko mere ah. non Alioune du dara de Alioune Cissé moo dëgër bopp si boppam. Mhm. dafa dëgër bopp si boppam mhm. Alioune Cissé. Mhm. fa dëgër bopp. ah xam yow boo nekkee sax coach wala entraîneur. ba ma ñi lay seetaan ñoo la gën a xam li ngay def. ba ba ñi lay seetaan ak di ñoo la gën a xam li ngay def téeméeri junni woon mais démb moom wane na ne démb moom xamul dara. Mhm. donc yóbbu nañu fii yóbbu nañu fee mais démb dafa wane loo xam te ne moom. Mhm. mais déglu nit ñi. Mhm. am na ne ay booy yoo xam ne xool dañuy fubal. surtout nekkul xool kii rek nga yaakaar. ah. mais tey ma xool billahi ba ma déggee ni xool Sadio Mané ñëwul. ah gis ah, gisuma yeneen joueurs yi. ah. laa ni non ñun dañuy jouer nii rek mais. ñi ngay jëw ñoo la mën bokkul sax quoi. Mm-hmm. mais 3-0 yu bii dafa yomb. mais yaakaaroon ni comme première mi-temps bi ni mu tegoon noonu mën nañ ko eggale woon match bi. non mënoon na yegg mais mais si Alioune Cissé ak classement am. Mm-hmm. Alioune Cissé moo nekk xool coach boo xam te ne lu ko neex lay def du déglu nit. Mm-hmm. Alioune Cissé nag moo war a nekk nit. mais ñun moom xool gàcce xam naa dañu jik quoi ñun moom mm-hmm. danoo sonn si ay gàcce gàcce. Mm-hmm. gàcce problème. Mm-hmm. grève ba kañ. d' accord mais tey naka nga gisee sénégalais confiance bi nga xamante ni amoon nañ ko ci match bi avant ba koo fëgg rek mun la ñun dañu dóor Angleterre. waaw parce que buur bee tourné te boo xoolee xool premier euh, kii premier xool mbiram tey boo xoolee xool premier mi bi. mu ñu amoon nañu ko facilité pour dugal. am nañu deux occasions. xam nga coupe du monde te ak coupe d' bokkul. ñoom caaxaanunu mhm. bu ñu amee occasion da nga koy dugal rang muy gaaw mhm. mais pourquoi mënuñu def loolu di yembar yembarlu non booy seen ñoo war a am jom mhm. ñu mel na tubaab yi parce ñoom ñoo tànn football ba amee Aliou Seye lu ñu ko waa par mois ba amee trent millions ba amee Sénégal mu ëpp salaire donc dugal nañu sax huit milliards amee ah, huit milliards yooyu noonu ak na nga ko nit ñi. Mhm. moo gën quoi. Mhm. ñëpp a yaakaaroon. parce mhm. que danoo gëmoon suñu bopp. mais gëm ni bii yi da koy dóor. Ah, mais gëm ni dañuy demaat feneen ak feneen. ah parce que ñaata équipe ba dóor ñeneen. dëgg la boule bi moo changé monde bi moo changé. dëgg la parce que ñoom ñoo programmé lii ñoo teg lii ñoo def lii ñoo def affaire tubaab la. ñun du ñu ay nous sommes pas des tubaab du ndayu tubaab. ay nit ñu ñu la Afrique moo doon joué. dëgg la ñëpp doon jàppale Sénégal. dëgg la ñëpp a doon ñaanal Sénégal mais dafa am ay yàqkat yu nekk ci town bi. dëgg la dëgg la ma ñëw ci wàllu pari foot bi parce que sénégalais yu bari aussi tamit daanaka tey xëy nañ seen kees këpp ñu bari aussi tamit investir woon ci seen xaalis xëy di jooy. waaw parce que ñoom ñoo gëm ay pari foot. Hmm. ñoom ñoo gëm ndayu ay pari foot. gëm ay joueurs yaakaar ay pari foot pour gagner. Hmm. mais gars yi da leen di peese rek. Hmm. gars yi da leen di peese. tey boo xoolee tey xool jeunesse su xool Sénégal ñëpp si pari foot nañu dem. mais pas sax pari foot. maire yi pari ah nga dégg kii naa naar beeg def naa naar bi lii def naa préfure bi nii. Mhm. ñoom si kaw nit ñi dañuy liggéey. dëgg la. même waaye mais ñun lu ñu kéré mais ñun sax mënuñu sax kéré lu mel ne sax préfure la leneen mënuñu kéré dara Sénégal. dëgg la chaque fois dañuy kaas Sénégal. loo xam ne xool mais jàmbur yi jóge fee ñëpp song ko. dëgg la waxtu xool coupe du monde ak euh, wet mondial yi. Mhm. ñëpp dañuy vidéo si préfure bi. Mhm. yaa ngi yaa ngi teg ci équipe bi mais jeu la rek dañuy gagné mbaa nga perte. d' accord tey ma ñëw ci avant match bi coow li amoon muy maaraay boo xoolee match bi commencé ba tey kenn xamatul sax fan la tension yi toll ndax maaraay dama ñëw ci avant match bi ñëw ci match bi démb avant match bi maaraay. man sama problème mooy maara nouveau talent yi. Mhm. gars yi dañuy jaawale sëriñ ak këriñ danay jaawale sëriñ ak féticheur déggu alxuraan la yu allama naasu sexra dañuy jàngal li ñuy xërëm. Mhm. xërëm la loolu loolu loolu du xam-xam. Mhm. loolu xërëm la. xam nga ñooy sëriñ. ay El Hadj Malick ay borom Touba Baye Niass. ay Baye Laye. ay sëriñ Babacar Sy. bu bu ñuy tànn sëriñ. ñoo ñooy sëriñ. mais Sénégal ñoo bëgg a ndeyu sëriñ. gëm nday affaire xërëm. bëgg a nday te dama war a sox si kër sëriñ si ndaw si nii. ah bu ko defee Salbé Ba ñaata ñu lay recevoir. bu ko defee Kounkandé lu mu waxoon. bu ko defee moom lan la fenoon. deux la waxoon ndax pour lekk xaalisu état bi. weta Samba Ndong moom la la waxoon ay billaahi wallaahi nanu ragal yàlla quoi. ñu xam ne ñun sëriñ yorul ndeyu suñu wërsëg. mais la mooy ndeyu lii chaque année nga gis benn dulkat ñëwaat. naan waa am naa ay jinne am naa ay lafañ. am naa nday ay handicapé am naa ay gumba amal nday ay dëmm. ñun ñëpp ay dëmm lañu ñun ay cedd lañu ñun ñëpp a jommi. nanu may ni ngi jàmm ñu gëm suñu bopp mm-hmm, mm-hmm. ñu bàyyi ndayu genre marabu yu ndaw yi nekk si dëkk yi di parale seen ay béjjën mm-hmm. di saw nit ñi ku nekk naan may may xar géej ak maa jaar si ko asamaan seek am naa ay dëmm fii ñëpp am jinne ndax xalaqa insaan wala jinni illaa li yaabudu nii yàlla moo sàkk nit ak jinne pour ñu jaamu ko jógo ñu doomu aadama yi day mu jinne ñu lépp téeméeri junne yoon d' accord mais tamit gis nañ ci benn jeune boo xamante ni moom tey vraiment li mu waxoon ci kan bi yëpp def na ko mu di Karamba waxoon na dinañ yóbbu coupe waxoon na dinañ gagné. mais après coow la am seen biir ñoom seen biir la man seetaan naa seen ay confrontation moo xaw ma Mara xaw ma lan. Mara Niass. tu vois man am na ñoo xam sax du ma leen déglu. ndax mënoo nekk si live di xola di mënoo nekk si Instagram di live ak góor jigéen ma lay déglu Baye Fall man soxla ma ay buzz. ji maanaam ñoom. Mhm. mais ñoom avant ñoom ko Sénégal ñu ngi doon dund seen jàmm quoi. ñu ngi am seenu jàmm quoi. Mhm. instant dëkk bi ñaari sëriñ fi nekk. Mhm. ku nekk di wax quoi. kii naan damay faj ki fajal. da mm-hmm. mais Sénégal ñaata dof ñoo fi nekk di wëndeelu fi dëgg la te Karamba gisoon nañ moom match bi nee bu jaax bu ñu jaaxle woon waaw moo xam mënoon dugal ay bii sama kaat-kaat nii sama ay millions nii fii ñëpp a soxla xaaj mais pas mën naa lii ba ma joxul oto du ma am da moom jinne yooyu mi wax naan mën naa leen yóbbu Qatar ak yooyu ay kii la rek sa waay gis nga gars daal ñu ngi seen xel rek di teg seen main te xam nañ Sénégalais ay dof lañu mm-hmm. ku kanta ñëw fi naan xool day xar géej ma ne ñu ne fii sumb ji naan day xar géej yow ma Ashura ñëpp gëm ko. d'accord di ko xaar anam tey. waaw am na ci keneen koo xam ne tamit waxoon na nañu watu ay ndel. waa ko moom mais gis nga lépp looy digle yaa su jiitu ñu watu nel watu nel pare yaa war a njëkk watu nel naan ay Sénégal yi foofu nan watu nel quoi mën na ay dëmb quoi mais yow est-ce que ça c'est que faux marabout yi lu leen neex wax parce que yenn journalistes yi ñoo leen di may buzz ñooy lënkoo yenn presse yi ñu fay journalistes yi ñu nekk ci télé lu leen neex wax ay damay xar géej ak damay naak ay watu leen nel ak def leen taatu neen yow defal taatu neen watul nel yow ñu xam ne yow watu nga nel nga def ngan di nel watu naa ñu watu ba mais sangu ta sangoo mais xam ni ñi ay dof lañu mën nga nax ñii nag quoi mais ñii mënoo leen nax mhm. ici quoi mhm. ba te lu fu waay fen rek dina feeñ. Mhm. parce que sénégalais yàqamtu na xool kuy fen. Mhm. bu ko sénégalais booy duul dan lay ànd yow si sa fen ñu bàyyi la ba fen bi jeex ba nga puub. Mhm. ñu ne la yaa puub lii. Eh. kon tey fi mu toll nii Mara yi yow lan ngay xaar ci ñoom. ak lan ak ak ak lan moo war a dal seen kaw. non li war dal seen kaw mooy état bi ak yoon. ba mais comme ni ñu jàppee Mara bi demoon si jàkk yi. di xutba xool bay bay xutba ay protect ci biir jàkk ji mhm. ni ki état jàppe noonu la état war a jàppe yeneen maaraay ñu may nu jàmm mhm. il faut état ñoom ñoom seen jàpp yëpp jàpp sàcc la mhm. tokkatu yàmba te pourtant ñu gën a bon sàcc ak tokkatu ñu si dëkk bi fii ñu dàq fen dàq jaxase réew jàmm moo koy doxal. Mhm. ak wax dëgg quoi. te aussi tamit dañoo gis nii Mara yi dafa dem ba sénégalais yi sax fàtte nañu match bi dañ leen a gëm à 100 pour cent dem ba jël euh, yàlla place yàlla teg fa Mara yi te yow jàngal xuraan. xam nga euh, boo jàngal xuraan moom ah. Mhm. boo jàngal xuraan. Mhm. da ngay neex a détourné. yàlla bi muy keree addunaam si xalaqa samawaati wala arde fi sittati ayaamin suma sawa alal arsh bi muy keree addunaam tàggul sax seen papa ñoom. dëgg ñoom amagunu. bi ñu doomu aadama si alimul awraax di tëgg roox ñoom amagunu ñoom ki ñu yaakaar sax amagul mais senegal tey aussi ñun ñu sonn ñun sëriñ si ndaw si ñoonu fatta ñun sëriñ si nekk si dëkk bi ñoonu amerde ñun sëriñ si ndaw si nekk maanaam sëriñ maanaam maanaam nouveau talent yi nekk ci dëkk bi ñoo fatta ndayu senegal yi lu waaye neex wax Sénégal ku nekk naan man marabu laa man dëmm laa man damay naaw man damay puub man damay jommalaate am naa jinne fii mm-hmm. te sa gàlle ba demee sa gàlle am na ñoo xam ne ñu ngi foofu xaw na leen faj te kenn faju leen mm-hmm. am nga nijaay bu mm-hmm. bu dof wala na nga ko faj taffaire gars yi dafa mel ni ñuy def ni ay mise en scène la quoi ay mise en la lënkoo la ak yenn presse yi ñoom dañuy lënkoo ak yenn presse yi di teg ay mise en scène parce que ku ci mel ni Karamba ñu ngi gis ni moom neen am na ay jinne te keroog dafa yeewu fekk ñu otom waaw yow boo amoon jinne xool boo amoon jinne xool jinne gaare si oto bi xam nga ni ki di nga xam nga ni ki da nga wax ba weer sa bopp di la virtu quoi yaa ngi ay mais sa oto bi ñu ko toj ba xanaa amoo ay jinne mais jinne la gaare ñu gaare saalal ma man ne samay jinne ñoo may gaare barke yàlla man samay jinne jaaxal na ñëpp ah boo tamit li ko toj vraiment ak jinne yi bàyyi faal borom xam-xam kenn du ko laal dëgg borom xam-xam dëgg dëgg dëgg yàlla xam ne doo ko jege mm. yaa ngi ay jinne kay waaw mais jënd yi ban lay yàqal mais su jënd yi xam dañ demoo xam soirée yi xanaa <laughs> gars yi tamit nan wax ak Sénégal yi tamit quoi <laughs> est-ce que tamit lii aussi tamit boo ko jëlee nga xamante ne indil nañu gàllankoor ci match yi muy cat quoi ak wax ji aussi Lamine moo Lamine mais Sénégal lu ko dal Lamine moo nu ko teg ah. ku nekk di wax mm-hmm. ku nekk yor sa bajo ŋaa ŋee mm-hmm. Sénégal nii mm-hmm. daawaata jéeg xool Salma Ndong defoon na ko fi nga tax Salma Ndong mooy maire boobu noonu sama yaay ma di wax naan billaahi Sénégal nii billaahi buñ ma joxee lii billaahi amee sëriñ feñe sama pooj xam nga ñeme yàlla nanu ragal yàlla nanu ragal yàlla nekk ay nit ñu xam ne senegal Sénégal ñu moytu sëriñ si ñu topp nii Sénégalais moo bëgg ndayu sëriñ da ngay benn dëkk si si àll bi te ñu koy def ñëpp ñu sëpp ñu xool dëkk ñu fi. ñu sëpp dinaay Sénégalais. dana ñëw dem benn télé benn si benn ñu créé benn site internet lënkoogu moom ñu fay ko munin mhm. je parle de Bijou Ngoné bu 2STV moom mooy def affaire de confortation moom émission lépp ay émission seytaan la émission jaxasta la yow mënul am mag suba nga invité ñaari mara ñaari féticheur boog ñaari waxkat mhm. ku nekk naan man am naa ay dëmm mën naa équipe bi maa ko yor ba lii lay yàqal mu ngi lay xool dégg lu nu dal sunu defet bi na am nii mu te bisu ngoone xolam loxo mu ngi si biir. Mm-hmm. ndax lu ñuy njaaga mooy njaag. Mm-hmm. nanu téye nday seen lamini seen presse yi ñu may nday ni ngi jàmm quoi. Mm-hmm. ñu bàyyi senegal nekk senegal fii kenn mënu fi jombal nday kenn. moom li muy def émission mi def noon lépp émission seytaan la. ay doonte kurpañ xeex a weerante te loolay doxal Sénégal kanam. ba naka na ni ay xool suba suba ñu rëfal suba de. nga jàkkaarloog ñaari mara. ko nekkee di wax nga xam ne ni ko toog si télé di wax ni kële seetaan moo lépp xam-xam fuuf te defu ko li ngay def moo la gën a jàng fuuf da yàqal doo dem fenn nanu téye nday seen gémmiñ ñu bàyyi nday senegal ñu am jàmm tamit quoi wax rek rang ñuy maanu Euh, tey fi may xaw a jeexalee comme dañoo am yeneen programme ci école bi aussi tamit euh, tey lii nii nga yaakaar justice aussi tamit waru ci jël liggéeyam parce que boo xoolee avant match bi gars yi jël seen i engagement ba ñu bëri investir seen xaalis tey match bi demee nii ku nekk naan noo waxoon naa ko waxoon naa ko justice est que amu ci yoon. xam nga avant justice xam nga cet waaw mais charia moo ne xeftu lisaanihi min alfahshaai wal kalaami atafabiq ni defar moytandiku làmminam ndagam dañ ko bind si téere bi xeftu lisaani moytandiku sa làmmin min alfahshaai wax ju ñaaw wala kalaam yi xoolal fabiq ay wax ju bon ndagam charia moo wax loolu imaam Maalik bind ko si laxdari wu ah mais la moo tax état bi moom la moo tax état bi topp topp topp jaaykatu yàmbaa yeeg sàcc yeeg ñii te état war a wax ak ñi nekk si dëkk bi di wax lu leen neex te état du dal seen kaw. Mhm. ah bi ma xasee kii Macky Sall man dan ma jël si. Mhm. ah bi ma jàddee loi. Mhm. si couvre-feu bi avant Sonko maa njëkk génn man dan ma jàpp. Ah, mais sama yaay bi muy gaañ mu fekk si kaso bi. ndeysaan ndeysaan ndax sénégalais yi. ndax yàlla yërëm. amiin ba tey ay sëriñ nekk fi di wax lu leen neex état lu tax di wax ak ñoom. état moo war a jël responsabilité am ni ko jagatu yoon yoon dal sa kaw. ne comme ni ngay jàppee ki tox juin. comme ni ngay jàppee sàcc bi comme ni ngay jàppee nday góor jigéen bi. Mhm. nu jàppee que duulkat bu nu jàpp fii ngay duul senegal nu jàpp sa nday point. Moussa merde waay fàttali ngeen nday nit ñi ba Sénégal mënu am ndax suñu nu rëy wax rek waa raaraara ngaa ngeen ku dàq wax nga ni kilee raw ñun mënuñu am ndax suñu làmmiñ ni benn gaan jóge fa naan waaw dëkk bi maa ko yor maay naaw maay yow naawal da ngay naaw si dëkkaw nit ñi ñu xam ne yow daan yaa ngi naaw sax. lënkoo say ay quelques secret sécurité topp dëkk bi di wax rek quoi ba may sénégalais nanu ragal yàlla ñu gëm suñu bopp ñu ngi ñu mel ne ay yéeféer ñu ngi mel ne ay jeex duna ay jaahil ñu duna ay tubaab duna ay góor jigéen. parce que man xam ba xam loolu dafa ñëw sama xel seetaan naa koo xam ne nee na rek bi mi ngi si xaar match Sénégal bi dafa am ay ay ay ay ay puso yu ay ay puso yu dugg ci put bi kon loolu gàllankoor la ci match bi quoi. yàlla xam na ne ñoom ñëpp xoolal billaahi dañuy fenn billaahi wallaahi. ñoom ñëpp dañuy fenn et puis ñu xam benn affaire de ba coupe du monde ba mais àdduna du yàgg mu ko xoolal. ba ah, africain jël parce que lobby la tout est programmé. da mm-hmm. mais Sadio la moo tax ñëwul. Mm-hmm. ba mais ay Kara Mbodj ay ñeneen ak ñeneen. dëgg la ah. Mm-hmm. am nañu ay jour am nañu ay jour am nañu ay booy. dama man ma mere sax sëñ bi xam nga laay mere Alioune Cissé laay mere Alioune Cissé si boppam moo dëgër bopp. muy ñàngal di nganda ngandul ñun faale woon ko de. na xam loolu baax a baax quoi. d'accord mu ngi noonu ah euh, vraiment moo nekkoon sama invité tey mu di waag waag 10 000 problème vraiment nekk nit ku baax nit ku disponible aussi ci people 221 heure bu ñu ko soxlaa rek amul sax xalaat danaan ñëw vraiment ñu koy nuyu ak équipe bi mu fekk fii yëpp du ñu yem fii ah. dañuy dugg ci biir école bi mu teg ñu ci ak su xool école bi. fan la soxla dafa parce que état bi dafa bëgg jaay école bi. Mhm. d' abord quoi. su mu la quoi. Mhm. école bi moo jàkkaarloog armeel bi. avant école bi xool na nañu jaay armeel bi. bu si ab lay Wade. wate mit naa xeex ñu bàyyi ñu bàyyi armeel bi. ci école bi. Macky Sall léegi na na école bi la ñuy jaay. Mm-hmm. mais école bi boo ko jaay da ngeen lor waa koñ bi. dëgg la te ñu ngi leen di xaar de da ngeen di jaay dégg mit naa ñu leen di xaar bisimilah. d'accord jërëjëf.